dafa am kuréel boo xam ni bu dajalee maanaam transporté bi nga xam ni dégg ni dañu bëggoon déposé maanaam lu ñuy wax préavis de dem dama woo responsable yi nga xam ni ñoo nekk ci cadre bi ñaar ñëwoon ñu ba ma leen di woo boobu moom dut la woon le 17 août 2021 ñu ñëwoon teew monsieur Alassane la ak monsieur Gorof Kouma ñu waxtaan ci wàllum maanaam seen liggéey ak surtout lu ñuy wax contrôle routier maanaam lu ñuy xool oto yi ci tali bi ba ñu déposé seen pré préavis de grève le 21 août man li nga xam ni maanaam ma taxawal gouvernement bi te yore dénk ñu dénk ma ministère des infrastructures ma leen woo pour wax jéem a waxtaan ak ñoom. point yi nga xam ne fukki poñ yu nekk seen négociation am na benn communiqué moo xam ne defoon nañ ko le 15 novembre 2021 pour wax maanaam syndicalisme maanaam taxawaay état ubbeeku pour mën ñu mën a waxtaan dialogue jéem a trouver solution yoo xam ni moo gën ci askan bi yëpp waaye après boo gisee. dañ leen invité woo leen leen benn bataaxal le 9 novembre 2021 waaye dañu gis ni bañ leen woowee nanguwuñu ñëw ñëwuñu barki euh, démb wala démb le premier décembre 2021 samay collaborateur bokk ministère bi daje nañu ak représentant cadre boobu ñuy wax euh, jéem waxtaan tuuti ba ñu jàppoon bi tey daañu daje bu ñu ñëwee xëy tey suba ma am ñu ma ci jot pour ñu war fee daje maanaam tisbaar vers treize heures trente tey jële ñu xaar leen ba ñetti waxtu jot maanaam quinze heures ma woo leen ñu ni ma duñu ñëw wala su ñuy ñëw na ministre yi bëri teew maanaam ministre yi nga xam ni seen poñ yi peut-être laal na leen nee nañ ministre de l'intérieur dafa war a teew ministre des forces armées dafa war a teew ministre de finance ak budget dafa war a teew ministre de l'environnement ak développement durable aussi war naa teew ñu boole ci aussi le ministre des collectivités territoriales et le ministre du travail di fàttali ni tey jii man ba ma ñëwee toog xëy na ministre aman na teewuñu woon waaye ay responsable de niveau yi nekk ci ministère yëpp ku ci nekk teew na maanaam même le directeur de la sécurité publique teew na colonel gendarmerie bu amee ci wàllum circulation teew na colonel douane teew na directeur eaux et forêt teew na euh, maanaam secrétaire général ministère des collectivités territoriales teew na waaye ba ma leen wooyee wax leen ni ñoom ñëpp teew nañu ñoom dañ duñu ñëw te ñëwuñu di wax nag gouvernement bi maanaam gis na ni cadre bi nekkuñu ci taxawaay waxtaan te loolu ñu ngi koy maanaam déplorer woo ne leen pour ñu waxtaan nanguwuñ ba fii may wax ak yéen ñu ñëw pour waxtaan ci mbir bi nga xam ni moo fi nekk indi jafe-jafe ci dëkk bi démb conseil de ministres président dafa joxe instruction ministre yi nga xam ni ñoom la concerné surtout ministre des forces armées ak ministre de l'intérieur ñu pour ñu gisee bu ñu paree conseil ba ñu paree conseil ñu dem daje ci bureau yi nga xam ni moom la ministre des forces armées yore fële ca plateau ñu waxtaan waxtaan waxtaan bu bari pour mën a trouver ay solution ci waxtaan yooyu lu ci génn mooy dañuy maanaam ci corridor yi su ma jëlee exemple corridor boo jógee dakaar dem Bamako corridor la yooyu moi dafa am ay règles yu mu fixé ñu ni léegi corridor bu nekk ñetti post de contrôle routier moo ciy nekk bien que xam nañu Sénégal ah maanaam dëkk yu ko wër dafa bëri jafe-jafe terrorisme baa nga fa ah wóorul waaye dañuy chaque corridor dañ fay def trois postes de contrôle te tey jii boo demee ci corridor Dakar Bamako boobule. maanaam commencé ñu mettre en application loolu contrôle yëpp wàññeeku na d'ailleurs pour wax joo ñuy wax engagement boobu ñu jël ñu mën ko tënk ci kayit am na benn arrêté ministériel boo xam ñu ngi koy defar te dana pare lu mu yàgg yàgg dana dana dana teel a pare te ministre yi mu concerné yëpp daañu signe arrêté interministère boobu ministère de l'intérieur dana ko signé ministère des forces armées dana ko signé ministère donc euh, euh, maanaam des euh, des finances budget ak finance dana ko signer ak ministère des collectivité territoriales dana ko signer suñ ko signer maanaam arrêté interministère boobu ñëpp lay engagé te arrêté interministériel boobu ñu ngi koy defar te dana pare ci ay fan yu néew wala peut-être ci ay heures yu néew am na beneen poñ boo xam ni waxtaan nañ ci surtout au niveau du ministère moom la gën a concerné mooy lu ñuy wax la concurrence déloyale war gaynde yeeg alors dakaar yeeg et cetera et cetera di wax ni loolu ñun ñëpp xam nañ ni transport illégal la ak irrégulier jël nañ ci ay matuwaay pour quand gën a fexe ba nga xam ni ñoo ñuy def transport irrégulier ak ak illégal soit ñu régulariser wala ñuy fexe avec le contrôle ba bu ñu mu def bu ñu mën a def transport public beneen poñ bi parce que fukki poñ la waaye dafa am ñetti poñ yoo xam ni ci am solo la ñetti poñ yooyu laa wax ñetteel bi lu ñuy wax maanaam contrôle à la charge de l'essieu mooy chargement camion yi rek lu ñuy chargé dafa am noo xam ne nu ñu koy chargé day weesu capacité maanaam camion yi non seulement loolu danay jur accident waaye day yàq tali charge boobu nag dafa am ay directives yi nga xam ne UEMOA moo ñu ko sas et engagement bu ñu jëloon Sénégal jëloon mi ngi ko jëloon depuis le 19 septembre 2019 à Dakar donc lu ñu ciy wut mooy fexe ba respecter maanaam loolu mais bu ñu gisee am na maanaam ay tolérance yu bëri yoo xam ni def nañ ko fii ci Sénégal boo demee yeneen dëkk euh, maanaam li loolu UEMOA joxe comme directive par rapport donc ak les charge à l'essieu Sénégal dong moo ko appliqué parce que dafa am loo xam ni dafa leen koy daf koy toléré accepter ko les transporteurs waaye boo demee Mali bi maanaam réglement 14 boobu ñuy wax daf koy appliqué yeneen dëkk yëpp dañ koy appliqué Sénégal dong moo ko dese appliqué par rapport engagement yi nga xam ni jëloon na ko di wax ni nag gouvernement du Sénégal gis na jafe-jafe ak tolof tolof yi nga xam ni grève bi moo ko indi ñu warul liggéey liggéeyuñu ñu waroon dem faju ji fajuwuñu ñu waroon dem am en tout cas commerçant yi liggéey de kenn demul dem dëkk dikk bi maanaam dakk na boole ci nag maanaam yàq-yàq bi nga xam ni am na ci ñi nga xam ni dañoo bëggoon liggéey su ma nekkee di continuer de liir xëy na loolu maanaam dana jafe waaye nag vraiment di regretter conséquences yi nga xam ni grève bi daf ko indi ci économie dëkk bi ci koom-koomu dëkk bi ah, lu loo xam ni lu diis la te di montrer suñu solidarité vraiment di naqarlu mbir mi bokk naqarlu bi ak population Sénégal nga xam ni grève bi yàqal na leen lu bëri te grève bi mënoon na bañ a am en réalité man gëm naa ni mënoon na bañ a am bu fekkee defar dong moo ñu tax a jóg mënoon na bañ a am donc loolu ñu ngi koy naqarlu waaye nag di wax ni kat am na loo xam ni duñ ko seetaan parce que gouvernement dafay condamné maanaam yàq-yàq bu am ci dëkk bi ñu jógoon pour liggéey ñu toj seen ay oto jël saccagé ay kaaru ak ay bisu Dakar Dem Dikk loolu état bi daf koy condamné fermement te mënu ko seetaan képp koo xam ni dafa bugg liggéey war ngaa mën a jóg dem liggéey ku bëgg a grève droit consacré la bu la neexee nga grève waaye mën ngaa grève bañ a teree ku bëgg ba noppi bañ a teree ku bugg liggéey mu liggéey parce que nu nga amee am droit grève noon que nit ki amee droit dem liggéey bu buggee liggéey donc grève la sa grève booy grève te nga bàyyi ko bugg liggéey dem liggéey loolu nag gouvernement bi dana jël matuwaay bu mat sëkk pour képp koo xam ne bëgg na liggéey mu dem liggéey te loolu aussi bépp kuréel bu nekk ci biir état bi moo xam ne service la wala gouverneur wala préfet wala sous-préfet wala maanaam force de l'ordre yi ñu jël matuwaay yépp pour képp koo xam ne bëgg na dem dëkk moo xam ne liggéey wala doxi soxlaam mu mën ko def en tout sécurité en tout liberté donc état bi comme nu ma ko waxee léegi dana jël matuwaayam yépp pour que dëkk bi mën a tourner Euh, comme nu ma waree te état bi dana jël ay responsabilités pour loolu mën a am donc di leen gërëm bu baax di leen sant.